mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ah, nuyu mbokku téléspectateur ba Thiénaba TV ah, ñu ngi jiital ci nuyoo bi le xalif général Baye Serigne Abdourahim Seck ah, di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko waaye wàcc nuyu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides nuyu Serigne Babacar Sy Mansour xalif général di Tidianes nuyu Serigne Cheikh Makhtar Seck xalifa Ngourane Euh, di nuyu mbokk jullit yi jàkkaarlook ñun waaye di nuyu sëriñ Cheikh Amadou Seck imaamu ratib bu Canaba ak imaam yi mu bokkal euh, grande mosquée bu Canaba ak jàkk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Canaba wala bitib Canaba ñu leen di nuyu di leen ziyaara euh, nuyu sëriñ Alsaan Ñaana Seck chef de village bu Canaba nuyu ki nga xamee ni moom mooy may sa Diop muy chef de village bu Kër Maysa nuyu Pape Ba imaam bu Kër Maysa bu ngeen gisee nag ñu nuyoo noonu macha di ngeen xam ni kon. Euh, Thiénaba TV euh, jël na ay bagage am jël na ay matériel am dem ci dëkk bi ñuy wax Kër Maysa Kër Maysa ak Thiénaba nekk benn dëkk macha allah ndax mag ñi noonu la ñu àndee woon démb ak euh, barki démb. li waral loolu nag mooy Kër Maysa ci boppam njobootu Kër Maysa ak ressortissant Kër Maysa képp koo xam ni cosaanoo na ci dëkk boobu muy Kër Maysa nga xam ni ñu ngi ko fondé en 1880 ñoom ñoo jóg nag war waajal bis boo xam ni bis bu màgg la bis bi. Euh, daan nañ ko def waaye euh, ngoon nañ ko daan def waaye tey nag euh, njaboot gi ñoom ñoo dajaloo def nañ ay waxtaanu biir def nañ ay waxtaanu biti waaye am nañ digal bu jógee ci kilifa yi ñaanal leen leen ci bis bi ñu war koo def nag benn journée boo xam ni dañuy xëy suba ba ngoon bu ñu xëyee ñaanal mag ñi waaye bu ngoonee ñu def conference boo xam ni conférence su diine bu mag a mag la ci loolu nag. Euh, la ñu war a jàkkaarloo ak askan wi euh, jàkkaarloo ak ñi nga xamee ni euh, ñoom lañ ko bokkal waxtaan ci ak ñoom woote ci woote bu yaatu waaye gën leen cee indi ay leeral loolu moo waral Euh, Thiénaba TV ñëw fii ci Kër Maysa jàkkaarloo ak euh, njaboot gi euh, bu ko defee rek ñu yëkkati seen woote jëmale ko ci askan wi jëmale ko ci téléspectateurs yi waaye bala ñoo dugg ci woote bi li ñuy njëkk a def mooy kàddu gi dañ koy jox Serigne Ablaye Diaw mi nga xamee ni moom moo yore chargé communication ci seen mbootaay seen mbooloo moomu bu ko defee mu yëkkati rek leeral ñu Kër Maysa kañ la fan la kañ la cosaane euh, ban année lañ ko fondé Kër Maysa mag ñi fi nekkoon naka lañ doon dunde euh, bu ko defee rek mu nekk loo xam ni dañ koy lale waxtaan ginnaawam nag dinañ jël kàddu gi jox ko euh, sëriñ Ngouda Gueye bu ko defee moom dina yëkkati woote bu yaatu jëmale ko ci askan wi gën koo leeral ci wàllu conférence boobu bu daaneelee ñu jox soxna Mbène Ndiaye mi nga xamee ni moom moo jiite soxna yi bu ko defee rek moom tam mu yëkkati ab woote jëmale ko ci soxna yi bu ko defee rek dañuy yëkkati kàddu kon jox ko sëriñ Ablaye Diaw mu yëkkati kàddu jëmale ko ci bis bu mag boobu. maaleykum mbokki jullit yi euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaax bu baax di leen baal di jiite ci nuyoo bi suñu sëriñ xalif général de Tidiane Baye Abdourahim Seck di ko ñaanal yàlla fanu gudd ak wér gi yaram di nuyu également suñu chef de village may Maysa jóg di ko ñaanal aussi fanu gudd ak wér gi yaram di nuyu suñu xarit ki nga xamante ne mooy ambassadeur u Kër Maysa ci Thiénaba muy sëriñ Alassane Niane chef de village bu Thiénaba di nuyu également ki nga xamante ni moom la yàlla teg ci arrondissement Thiénaba muy le sous-préfet Ndiak Sarr di nuyu également euh, le premier magistrat de la ville de Thiénaba euh, de la commune de Thiénaba muy le maire Talla Diagne ah tey nag dañu am mbégte ak bànneex euh, di wax ci bës boo xamante ni dañ ko war a def fii ci Kër Maysa mais avant loolu rek comme li Ndiame wax aussi histoire dafa baax ñu koy rappeler les jeunes générations parce que Kër Maysa village la boo xamante ni ñu ngi ko créé en 1880. donc yaakaar naa boobaak léegi yàgg na yàgg boo xamante ni ah def na ay ay ay at yu bëri mais particularité bi nga xamante ni Kër Maysa am na ko dafa sës ci Thiénaba parce que Kër Maysa nii mag ngi doon dundee mooy seen lépp benn la woon euh, pratiquement benn mag su musaana wax Kër Maysa rek lu mu wax rek loolu la ñëpp wax tey nee naa dimanche tey fu mu jotee ci pencum Kër Maysa benn xale bu góor dem di añi fenn añ yëpp ci penc bi la ñuy ñëw te loolu aussi ah néew ma di am na fu mu bëri ci Sénégal mais yaatuwul euh, tey dimanche fu la neexee gan gu mën a ñëw foo ñëwee kër Maysa jarul ngay dugg kër kenn toogal ci fii xale yu góor yi toog añ yëpp fa la ñuy fekk ñu añ macha allah kër Maysa problème bu fi nit am xanaa nga bañ kaa wax mais su fekkee wax nga ko na muy saafarawoo sax da mujj sax da ngay mujj yéemu loolu aussi particularité boo xam te ni suñu mag ñi aussi ñoom ñooñu ko ñoom ñooñu ko ñoom ñooñu ko liggéeyal euh, te loolu aussi xale yi ñu ngi si jigéen ñi aussi tamit macha allah. nee naa Kër Maysa yàlla mi ñuy defal sutura di ñu defal jàmm yàlla yàlla jàmm jooju continuer parce que tey mun naa wax ni gendarmerie musul dugg fii di àtte Kër Maysa musul am benn convocation bu jógee fii nit yóbbu gendarmerie te loolu aussi tamit ñàkkul ni am nañ ay problème suñu biir mais tout le temps aussi mag ñi ñu yàlla euh, mooñaaleel ak mag ñi nga xam te ni ñoo fàkk Kër Maysa ba problème bu mën a am dina xool nu ñu koy gérer ba euh, tey waroon am yëpp dootul am loolu aussi particulier aussi ci Kër Maysa benn particularité bi nga xam te ni Kër Maysa am na ko nee naa Kër Maysa ak Canaba prolongement rek la wanag la ci Canaba parce que dañaan dégg ni euh, mag ñoo ko daan wax sëñ Ibrahima dafa daan wax naan imagine leen kër gu amul wanag kër gu amul wanag ñu ne ko loolu loolu mooy lan mu ni Kër Maysa wanag la ci Canaba te loolu sincèrement nag ñun tamit ñu ngi koy dund parce que tey lépp lu Canaba bañ Kër Maysa ñu ngi ciy jéem kàttanam démb rek bi ma euh, du waxtaan ak ay mag yu dëkk Canaba ñu ni boo xoolee village wër Kër Maysa village yi wër Canaba Kër Maysa dafa nungul Thiénaba à cent pour cent te loolu noonu la war a demee parce que mag ñi fi nekkoon seen lépp Thiénaba la ñu tamit ñu dellowaat njukkal Serigne Thiénaba parce que tamit tey lu mu mën am tamit Serigne Thiénaba tey moom moo mooy mooy njaboote ñëpp ñu waxtaan suñu biir ñu ni ah dafa jaaduwul nag lu toll ni jour Korité ñu teg ay musique ñu lendemain tabaski lendemain Korité ñu teg ay musique muy raisonné di dem Thiénaba ñu ne pourquoi pas ñu ne organiser une journée religieuse boo xamante ni tey lépp lu waa Thiénaba soxla lépp lu waa Thiénaba bañ Kër May daf koy bañ parce que loolu aussi xale yi Kër May da leen ciy parce que maintenant dix ans de cela tey musique amatul Kër May sa kenn kenn du xewle ba jël musique di ko teg loolu aussi particularité boo xamante ni Kër May sa am na ko benn particularité bi nga xamante ni Kër May sa mi ngi koy doxee lendemain tabaski ñun ñoo njëkk village bi njëkk dem ziyaari xalif général Thiénaba dañoo toog ci pénc ma fa ñu añee tey nee naa bu ñu événement tabaski kenn du añi fenn ci pénc ma la toog añ bu ñu toog ñu ne ah ñun est-ce que mu ñoo def benn kii ñu def euh, dem ziare ji euh, sëriñ Baye Ousseynou Xaar boobu moo fi nekkoon yàlla yàlla yokk leeram ñëpp d'accord ci loolu muy tijaan murit euh, nguraan canaba canaba yi nee naa canaba canaba yi ñoo fi ëpp wante jour ba ñuy dem ziare ba tey tarixa yëpp ku nekk jël na nga am ni ah kon kat comme Baye Ousseynou moom la fi yàlla teg te lépp lu kër may soxla ma nga ca ñun nag nañu dem kem kàttan dem sàkkal ko bis ñu dajale suñu tuut yóbbul ko man mii booba ba ñu demee ca délégation ba laa àndoon keroog Baye Ousseynou dafa kontaan daal tey bi ñu koy présenté délégation yi ni ko ñii waa Ngourane la ñu bokk ñii Touba la ñu bokk ñii Tiwaawan la ñu bokk ba ñu paree wax ba pare mu ni macha allah moom daal li ko ci gën a neex mooy Kër si def nañ benn bopp ziare xool taalibe Thiénaba xool taalibe Tiwaawan xool waa Touba moom ay jullit ñoo ko si ziare loolu aussi particularité boo xam ni ziare bi ñun ñoo ko def. ci bàyyi Ousseynou Xaar ba tey village yëpp ñu ngi ciy roy loolu aussi particularité bu la boo xamante ni Kër Maysa aussi am na ko benn particularité bi nga xamante ni tey Kër may sa mi ngi koy dund mooy wax naa ko sànq nee naa tey Baye Maysa mooy chef de village bi mais ñun ñëpp nungul nañ ko ko tey su waxee rek pratiquement ñun Kër may Maysa kilifteef lañ mus sa xam kilifteef lañ mus a xam lu kenn wax rek ci lu baax loolu la ñëpp di topp loolu moom macha allah ñu ngi ci ñaax njaboot gi parce que nit dafa am valeur. valeur mooy li la nga ne say maam dañ ko bàyyee loolu dañ ko war a di ko suuxat ñun suñu maam li ñu bàyyee mooy nañu topp Thiénaba di roy Thiénaba lépp lu Thiénaba soxla loolu la ñu soxla parce que la preuve ñun bi nit ñi toxu à l'époque di dem ci tali bi mënoon mënoon ñoo dem waaye fii ndigal moo ñu fi bàyyi te Serigne Ibrahima sekk dafa waxu lu am solo nee na leen Kër Maysa képp ku fa toog teraanga dina la fa fekk loolu aussi man fekkewuma ko mais mag ñi ñoo ñu faral di wax loolu te la preuve tey. am na ñu bëri ñoo xam ne ñi gëjoon Kër Maysa vingt ans de cela tey ku fi ñëw da ngay laajte Kër may sa ce que lii Kër Maysa la parce que loolu ñaanu Serigne Thiénaba ak ñaanu mag ñi xamante ni yàlla euh, bàyyiwu na leen Kër may sa loolu particularité la boo xam ne sëñ Ndiamé Kër may sa am na ko te ñu ngi koy dund aussi solidarité bi fi am nee naa amul fenn donc daaw ci corona bi rek preuve la pratiquement ci garab yi lañu daan yenn ñun ñëpp mais su ngoon jotee yàlla xam na ni même sax ñi liggéey di dem ñi toog ci garab ñoo ëpp ñoo ñoo ëpp xaalis. loolu solidarité moo ko mënoon parce que ku nekk daan làmb sa poot di jàppale sa morom te loolu ba léegi yaakaar naa loolu lañuy ñuy continuer di ko dund benn particularité bi nga xamante ni Kër Maysa am na ko ci Canaba mooy lépp lu Serigne Canaba soxla pratiquement su ko waxee ci may sa lay jaar mais baata ak tontu lay doon dañuy xool lañ ca war a def ñu taxaw ko ci te musuñ cee deltu ginnaaw te pourtant bu ñu bu su neexoon ñeneen ñu ni ah comme Serigne bi dafa adressé ay ay taalibeem ñu nañ bàyyi ay taalibeem rek dem. mais bu ñëwee dem amul murit amul tijaan amul xaadar amul laayen ñëpp ànd sol benn bubu dem taxaw ca ginnaaw sëriñ ba loolu aussi particularité boo xam ni Kër may sa wax dëgg yàlla ñu ngi koy dund ak ndigal Kër Maysa moom ndigal lañ ko mu sa xamee waa pratiquement li ma wax rek bu kenn waxee lu baax rek ñëpp macha allah topp ci ginnaaw la preuve tey autorités yi nga xam te ñoom ñoo fi nekk kenn musul laaxan xaleb Kër may sa ci envers la justice musul am yëguñu ko nag soo amee tamit yëguñu ko te man su amoon dinaa ko yëg. comme jamono ji dafa rëb xale yi pratiquement pour nga contrôler leen dafa nekk problème mais sincèrement ñu ngi sañ sant yàlla bu baax nag di ñaan yàlla loolu mu ñu may aussi yàlla gën ñu ko fulal mu continuer ba xam te ne tey Kër Maysa xale boobu ñëpp daal ci lu baax la ñu la ñu nekk parce que ci la ñu nàmp ci lañ juddu te yaakaar naa nit moom ci lu mu nàmp judd ci rek su góorgóorlu tuuti yàlla mën na ko jàppale. donc en tout cas daal historique bi ma mën a ramasser ci Kër Maysa loolu la euh, te yaakaar naa loolu dañ koy dund. suñu rakk yi aussi tamit nit li muy wax li nit lu mu xamul du ko def suñu rakk yi tey parce que loolu ci grand yi la woon keroog bi ñu wax ñu ni ay yéen sax defu leen sax ñun li ñu def parce que ñun bu ñu musaan a xëy dañuy dem foofu ba fajar grand yi doo ko dem tëddi léegi nag jot gi amatul temps bi amatul mais ñun ne serait-ce que dimanche bi nga xam te ni moom lañu ñu am suñu dajantee ci garab gi fa la ñuy toog tey jigéen ñi mën nañ maa témoigner nit ñi dañuy yàkkamti sax da ngay gis ko xam day taal añ 9h pour teel a pare añam pour mën ko indi nee naa la suñ fa yeewoo 9h bu ñu fa toogee 9h 21h moo ñu fay jógee moo ñu fay jëlee fa la ñuy añee fa la ñuy reere lépp fa la koy defee te loolu yaakaar naa bariwul ci dëkk yu mu loolu aussi entente rek moo ko man ñu ñaan yàlla entente boobu ak déggoo boobu aussi yàlla may ñu ko bañ mën koo continuer ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam loolu daal njàmmee euh, d'une manière très euh, ramassée historique Kër Maysa aussi loolu la envers Thiénaba parce que Kër Maïssa ak Thiénaba prolongement te xam naa d'ici peu de temps di ngeen xam ni Kër Maïssa sera un quartier ci biir Thiénaba loolu incha allah bientôt dina nekk parce que ku xool position euh, la taille de Thiénaba ak la population de Kër Maïssa ni ñuy màggee xam ni dootul noonu benn dëkk dootul noonu ñaari dëkk mais benn dëkk lay doon Kër Maïssa sera un quartier de Thiénaba te li may wax noonu bientôt incha allah di ngeen xam ne loolu incha allah dina am comme ni xay taqaloo Kër May euh, ak Thiénaba noonu la Kër Maïssa aussi fas yéene taqaloo ak xay Euh, parce que la preuve rek Serigne Alassane Niane dañ koy gërëm quoi parce que tamit moom mi ngi ciy dox tout le temps di ci wax di ci sonn ba gis nga bërki démb bi muy def euh, installation chef de quartier yi ñun dañoo invité en tant que dëkk parce que tamit bu su ko neexoon mu installé chef de quartier te du ñu woo dafa woo Baye Maïssa mi nga xam te moom la yàlla dénk borom dëkk bi ni ko damaa bëgg nga ñëw ànd ak installation chef de quartier douze quartiers yi bàyyi may sa tey keroog <clears throat> tournée bi maa ci ànd ak euh, sëriñ ñaan ànd ko ak yéen ànd ko ak waa Thiénaba yëpp te loolu aussi tamit particularité bu Kër Maysa am envers Thiénaba. waaw ci loolu aussi ñu ngi woo suñu frère Khadim euh, parce que li ma ko wax démb danaa ko yow fii Kër may Maysa yow lañ ko téyeel parce que sa maam mooy chef de moom moom moom dëkk bi muy Maysa Ndiaké te xam na ne bés bi aussi bésam la ah jël na engagement nee na lépp lu ci war ci bés bi lu mu ci mën dana ko ci def kon Khadim. li ma la waxoon démb rek wax la ko barki démb nee naa la kër Maysa sa kër Maysa la lépp loo ci def rek lépp loo ci nit defal dalaa jàppale yow itam ñu ngi lay woo bu baax a baax di woo également euh, Baye Abdou Niane mi nga xam te ne moom la yàlla dénk dëkk bi parce que nee naa la dëkk bi ay quartier la euh, ñu ko ci woo bu baax parce que tamit demoon nañ ci moom sàkk woon ndigalam ba am na ndigalam di woo également benn quartier bi nga xam moo fi nekk muy Daaru Mbodj te ci ki nekk ci bopp muy Pape Mbodj donc ñu ngi lay woo aussi di woo suñu mbokk yi nga xam te ne waa Kër Ndiag la parce que Kër Ndiak lépp lu Kër may sa Kër Maysa ak Kër Ndiak benn dëkk la donc prolongement la rek kon Kër May euh, ñu ngi woo bàyyi saalif ak ak njabootam ñu ngi woo également ñi nga xam te ñoom la yàlla def ah lépp lu canaba lu taarul bésu canaba seen loxo nga ca muy famille maam ma jooju mbub parce que ñoom bës bi aussi seen bës la parce que seen maam fii la jógee ko dem taxu canaba loolu aussi Baye Ousseynou bu fu ñu musaan a toog dana téye sama loxo bi rappelé ma ko ñun depuis njukki histoire bi muy wax sax mënu ma ko nettali parce que mais moom fu mu musaan a téye sama loxo dana ma fàttali njabootu maam Ngusaan ni mu mel ak Kër Maysa kon ki nekk ci bopp boobu muy Pape Mboup euh, ak ay magam ñëpp ñu ngi leen di woo ci bés bi di woo aussi Mansour Mboup parce que Mansour dafa am lu mu séq ak waa Kër Maysa Mansour aussi xale yi Kër Maysa ñu ngi lay tàllal loxo di la woo ci bés bi parce que bés bi nee sa bës la di woo également ñi nga xamante ni mooy waa gëm sa bopp te ci nekk ci bopp bi mooy mbaykan donc ñu ngi leen di woo diwoo ñi nga xamante ni ñoom lañu yàlla booleel muy mouvement associatif yàlla def moo nekk si bopp bi donc lépp luy nawetaan képp koo xamante ni am nga cofeel ci man maa ngi lay woo ci bés bi parce que nee naa Kër Maysa musul man musuma dem ci rajo di woote musuma dem ci télévision di woote bés bi aussi mooy suñu bés te day olof yi dañuy faral di wax nit ku ko xeebal bésam ah daf lay ah boo xeebalee bésam moom xeebal nga ko lu bëri ci moom ak sëriñam loolu aussi euh, bëgguñu xeebal ñu suñu sëriñ bëgguñu xeebal ñu aussi suñu bés ak suñu soxla te lii soxla la ak bés la kon ñu ngi leen ci woo mouvement associatif di woo aussi également euh, en tant que président conseil local de la jeunesse maa ngi woo ñëpp ñi nga xamante ni ay jeunes lañ nekk ci arrondissement Thiénaba muy Bangaaj tund bi yëpp arrondissement bi yëpp quatre communes yëpp maa ngi leen woo également di woo nga xamante ni yàlla ñoom la ma yàlla booleel muy ñi may toogandool foofu ci arrondissement bi ki ci jiitu mooy Ilimane Dieng ngi leen di woo ñoom ñëpp waa Thiénaba Gare Aline Kara ñoom ñëpp ñoom Jivika bàyyiwuñ kenn di woo également koo xamante ni suñu xarit la muy docteur Ismaïla Diallo mu nekk pharmacien bi nekk ca na ba ñëw jaxasoo ak wàcc na ba ñu ngi ko ci oo bu baax a baax di ci woo aussi Serigne Fallou Cissé bi nga xamante ne mooy sama premier vice président topp si man aussi jàppale moom bu baax a baax kon yaakaar naa fépp fu jeune nekk ak képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ngi lay woo bu baax a baax di woo également suñu frère bi nga xamante ne tey suñu defee politique bu ñu mënee bu ci mënee dara moom la muy suñu frère mbay Dione mbay ñu ngi lay woo aussi ci bës bi te yaakaar naa incha allah di nga ci def sa kem kàttan aussi di woo ñi nga xam te ni ñoom laa bokkal tund bi yëpp muy jeunes yëpp ak association yëpp di woo également ñi nga xamante ni tey ah Pa Alaaji Diop parce que dañ ko seeti mu wax ñu lu am solo parce que Pa Alaaji Diop sopp na bi dafa denc suñu bàjjen muy bàjjen Daba Fall képp ku wax bàjjen Daba Fall wax maam Jibi Fall te maam jii Fall moom lañ tuddee suñu waajur kon yaakaar naa ko kenn jiitu ko ci bés bi ba ñu demee aussi dafa ñu wax ni kër Maysa moom sama kër Maysa la kon bàjjen Daba Fall ñu ngi lay woo ak sa njaboot ñëpp nag également di woo ñu ñu yàlla booleel Thiénaba parce que Nija seen ñoom ñëpp ñu ngi leen ak suñu mag kenn jaw ñu ngi koy wow parce que képp ku wax Thiénaba ba danga wax kenn kon kenn yow ñu ngi lay woo bés bi sa bës la ak sañ njaboot ñëpp daal fépp doomu kër Maysa cosaanoo ci tund bi ñu ngi leen di woo dëkk yëpp bàyyiwuñu kenn yàlla yàlla defal Sénégal jàmm yàlla defal ñu bés bi tam mu nekk bés bu réussir te am nañ ci yaakaar parce que engagement bi ñu am ak euh, autorité ñuy taxaw fu ñu dem rek dañuy wax histoire Kër may sa ak canaba donc histoire la boo xamante ni xëy na xajul ci benn émission parce que démb sañu aas nett la ma ci loo xamante ni dafa daw sama yaram lool te yaakaar naa tey Thiénaba am na ñu bëri ñoo xam boo leen yeewoon tey xamuñu histoire boobu te la preuve bu ñu toogee ak Baye Ousseynou ak euh, xalif général muy Baye Abdourahim dafa ma faral di wax ni ma yow sa lépp ndox mu amari jàppoo sa maam Awa Ndiaye moom moo ko root loolu histoire la boo xamante ne tey ñun dañ koy tiitaroo parce que lu toll nii ndoxum ëmëri ndaag mu sasoon ko kenn muy suñu maam di maam Awa Ndiaye Diaw kooku aussi tamit histoire la taarix la aussi tey yaakaar naa tey fu ñu musan daje mus na maa wax loo xamante ne mënu ma yéen su fekkoon te ci confrérie murit la ñu nekk kon yéen ay oto ngeen di dawal Baye Baye Abdourahim moo ma ko wax tey loolu aussi heure fu ñu toogee dana ko jëmmal dana ko wax lépp moom kër Maysa la kon loolu aussi histoire la boo xamante ni peut-être euh, ñu bëri xamuñu ko woon ci Thiénaba euh, nee naa Baye moom xam na ko bu baax a baax a baax kon daal ci gàttal ñu ngi woo ñëpp di ñaan yàlla aussi bés bi lépp luñ ñu séntu aussi yàlla def ko parce que li gën a am solo mooy ay way dawlu ca may sa njaakee ba ki mujj faatu loolu la ñuy wàcc kaamin donc yaakaar naa loolu sax moo gën a ëpp porte ay jàng parce que dañuy kër may sa comme am na ay jàng sëñ galas yàlla def mu nekk suñu mbokk cosaanoo Kër Maysa mu sàkk bés bàyyam sàkkal ko bés ci Touba yi mu def ay jàng ñu ni Kër Maysa ñun ruus nañ aussi sëñ Galas di woote ay jàng ñu woote ay jàng ñun li gën mooy nañ woote suñu conférence bi ñu xool lu ñu ciy innové innovation bi ren nag mooy wàcce kaamil bi ñaanal mag ñi yàlla suturaal leen yàlla xaaral leen na te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñu woo ñëpp daal di woo sëriñi daara yi képp ku wax kaamil wax ay daara donc ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp. Ah, jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Ablaye Diaw macha allah euh, bu ngeen ko déggee muy wax rek Euh, di nga xam ni macha allah moom ndono li euh, jël na ci yàlla na ko jik euh, ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndono loolu may wax nag mooy relation boo xam ne relation bu retaxoon la ca mag ña diggante Kër Maysa ak Canaba kon mu ngi noonu Kër Maysa nekk dëkku cosaan. Euh, nekk dëkk boo xam ni kenn mënut tudd cana ba te tuddoo ko euh, doomu Kër may Maysa tamit mënoo tudd doomu cana ba te tuddoo ko ndax ñoo bokk lépp macha allah ñoom ñooy woote bis bu rëy euh, bis boo xam ni conférence la journée prière la bisu ñaan la bu ñu korité ba ci suba sa incha allah lañ ko war a def ku wax nag bës di nga woote jëmale ko ci askan wi jëmale ko ci kilifa gi loolu moo tax ñuy jël kàddu gi di ko jox Serigne Ngouda Gueye bi nga xam ni moom mooy président. Euh, jiite euh, mbooloo moomu macha allah ñu jox ko kàddu mu yëkkati ko jëmale ko ci askan wi. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi. leen di nuyu bu baax di leen ziare ci weeru tedd bi euh, gannaaw bu ñu jotee digal ci Baye Abdourahim Seck muy xalif général de Thiénaba jot ko ci Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane jot ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides ci ndigalu Serigne Maxtaar Seck bu Nguraan ah ñu jël nag tey bis boo xam ni waa Kër Maysa ñoo ko jël jagleel ko suñu ay maam mu doon journée de prière boo xam ni dañ ciy def ñaan def ci conférence mu doon nag une grande première daan nañ def sax bis yu mel ni waaye bis bu rëyee nii mi ngi doog a am donc gannaaw buñ ci waxtaanee. ñoom ñu jël lépp jébbal ma ko jox ma ko ma ma jiite ko ci ñi nga xam ni seen ay waajur dañu cosaanoo Kër may Maysa wala ñu juddoo fi ñu war a taxawee bis boobu bis boobu nag ñu ngi ciy woo képp koo xam ne rek yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu muhammadan rasulullah donc ci loolu nag ñu ngi ciy jiital waa Canaba ci ndigalu sëñ bi ñu ngi ciy jiital waa Canaba di ci woo Serigne Galas Khady ibnu alaaji baara moom mi nga xam ni fii ci kër may sa fi la cosaanoo di ci woo capitaine Ndongo Fall di ci woo euh, le premier magistrat de la ville di ci woo le sous di ci woo dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo wër kër may sa muy canaba gaar canaba sekk cawaare euh, kër ibra ñaan tuubaa géy kër ma ndaw xay babal euh, daaru mbóoj aaneen ndiireen Kër Mor Ndiaye bàyyiwuñu fenn suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk ci yeneen dëkk yi nga xam ni fu mel ni Thiès wala dakaar Tivaouane bàyyiwuñu kenn donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ci bis boobu ànd ko ak ñun muy bis boo xam ni bisub ñaan la ñaan nag dafa doon loo xam ni dafa doon gàllaaju jullit donc ba tax duñu ko duñu ko caaxaanee suñu wàññikoo ci ñaan googu nag dañuy daal di nag fàttaliwaat nit ñi ñu dellusiwaat ci ci ci ci ñu dellusi dellusiwaat muy place bi nga xamante ni bii moom la soxna yi di am ci ci ci kër donc bu ñu waxee dëkkuwaay wax euh, réew dañ naan ñan ñoo ñan ñoo ko yor kon soxna mooy doon li nga xam ni dafa doon dafa doon loo xam ne dafa am solo ci doomu aadama ñoom bu ñu taxawee rek taxawaay bi ñu war a taxaw rek euh, penc mi daal di rafet mais bu ñu ko taxawaayul penc mi day daal di xaw a doy war donc moo tax ñu jël bis bi jagleel leen ko ñoom mu doon bis boo xam ni ñoom la ñuy waxtaanee nan lañu war a def ci nan lañu war a doxalee ci société bi loolu daal mooy li nga xam ni moom lañu indi woon tey di ci woo ñëpp nag wax dëgg yàlla bàyyiwuñ kenn di woo sama mbokk yi ba kër Yaaba Jóob ma kenn donc na ñëpp ñëw ñu defal ñu honneur daal vraiment ci bis bi nga xam ni mu doon une réussite totale mu doon bis boo xam ni musuta musuta am fii ci woo euh, monsieur Talla premier magistrat de la ville di ci woo le di ci woo honorable député Mamadou Diop Decroix di ci woo euh, Bathie Ciss di ci woo aussi Khalifa Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye di ci woo euh, honorable Abdou Gningue di ci woo aussi ñëpp donc di ci woo waa di ci woo Pastef gëm sa bopp di ci woo suñ waa réew mi donc di ci woo waa PUR donc bàyyiwuñu kenn rek ñëpp ñi nga xamante ni bii rek askan wi tey moo leen ñor ñëpp ñi nga xam ne rek développement moo leen ñor ñëpp li nga xam ne rek diina lislaam moo leen ñor ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo aussi daay daara yi daara yi nga xam ne ñoo nekk ci tund wi euh, parce que dañ ciy wàcce kaamil kon ñoom soxla nañ ci seen taxawaay bu baax a baax a baax ñu ngi leen ci séentu bu baax ci ci liggéey bu mel noonu ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal jërë ngeen jëf. woo aussi suñu mag xalifa aan di ci woo aussi Gora Ndiaye bu Canaba Cana Canaba Gare di ci woo Mansour Dieye di ci woo suñu rakk suñu xarit Ngouda Sawaré donc bàyyiwuñu kenn euh, réew mi yëf yi daal mi ngi noonu kon ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku nekk na ñëw euh, def ci la def ci dox ci wàll wam ci wam ci war wam ci war a dox di ci woo aussi waa mouvement nawetaan ñu ngi leen ci woo bu baax conseil local de la jeunesse di ngi leen ci woo bàyyiwuñu kenn groupement des familles di ngi leen ciy woo bàyyiwuñ kenn di woo aussi la presse bi nga xam ni ñoo nekk biir Thiénaba waa Thiénaba TV gindiku ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn bu ñu sañoon daal bis bi day doon bés boo xam ni day alaa dawme te am nañ ci yaakaar bu baax a baax gannaaw bu ñu ci am ne ndigalu kilifa yi ñu ngi ciy woo euh, suñu camarade Babacar Ndiaye bu mouvement wàllu askan wi di ci woo aussi suñu xarit Maguette Ndiaye bu ànd jëf PADS bu Mamadou Diop Decroix donc bàyyiwuñu kenn donc ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ci bis bi di ci woo aussi suñu xarit Serigne Gueye bu Touba Gueye donc bàyyiwuñu kenn ci ci ci ci ci woote bi di ci woo suñu mag Mbay Jonn aussi ñu ngi ko ci bu Ngunjaan ñu ngi ko ci woo ci bis bi bis bi daal bàyyiwuñu kenn bu ñu sañoon daal képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah di nga ñëw teew ci bis bi jàpp ci ndax bés bi jag jërë ngeen jëf Euh, jërëjëf sëriñ Ngouda Guèye président macha allah ci woote bu yaatu boobu commencé ca kilifa yi euh, wàcc ba ci ñi nga xamee ni ñooy way politique yi euh, nekk ci gox bi ñoom ñëpp olof nag day wax ni ku lim di nga juum man ma naan ku lim da ngay desal doo mën a woo ñëpp waaye ñëpp rek ñu ngi leen di boole ci njobootu seydinaa Muhammad sallallahu alayhi Euh, di leen woo ci bis bi nga xamee ni euh, mooy bisu Kër Maysa euh, ñu ngi nag jaajëfal bu baax a baax di ziara tamit ndax conférence bi ñu ngi koy def sous la présidence d'honneur de Serigne Gallas Khady Guèye Mbacké ibnu El Hadj Baara euh, ak commandant bi nga xam ne mooy commandant Ndonga Fall euh, macha allah ñu amay taxawaay yu ama am solo kon ñoom la ñuy delloowaat bis bi ma fàttali leen ni euh, Kër sa lay xewee waaye bu ñu koritee ba ca suba sa ki koy def mooy oustaz Adama Gueye moom moo ko war a def thème bi la place de la femme dans la société mooy taxawaay bi nga xamee ni soxna am na ko ci biir société bi macha allah mu nekk thème boo xam ni thème bu ama ama solo la kon soxna yi am nañ ci wàllu woo xam ni wàllu yaatu la moo tax ñuy yëkkati kàddu gi ah, di ko jox ki nga xam ne moom mooy soxna Mbène Ndiaye ah, mi leen fi teewal ah, mu yëkkati kàddu gi rek jëmale ko ci ñoom. asalaamaaleykum mbokki julli di kenn ku nekk maa ngi leen nuyu sa tur ci sa sant di leen baalu àq di leen baalu àq tey jéggal bu baax a baax di sant sama ñaari waajur bu baax di sant sama sëriñ musaa Diop ndax lii lépp moom la ndax moo ma jàppale ndax dëkk bi man dama fee sëy si rek ñu ko moom ñëpp dañoo jénn àll bi dama leen koo jàppal rek ndax samay morom laa fi nekkal mënoon nañ leen ko jox mais dañoo am ci man confiance ak wóolute ba ba jox ma cër bii kon kontaan naa ci maa ngi ci sant bu baax yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla na yàlla def lu kawe suñu jot ci bis bii ndax bis bii ñu ko moom ñëpp ñu ci dama leen di jàppal di leen teel rek comme dama leen jàppal di leen téer nag maa ngi leen di jiitu ci yëf yi di leen wooyee ñëpp fépp fu doomu kër Maysa Njaaka nekk rek maa ngi lay woo ci bis na nga téel a ñëw boo ñëwee na nga xam ne bis bi yaa ko moom sa yëf la dañ leen koo jàppal rek ñu ne ñoo ñëw seesi fi donc di leen ko téel ñu ngi ciy woo fépp kuy doomu jullit rek ñu ngi la ciy woo waa Touba Gueye xayak Canabaak fépp fu doomu jullit nekk daal ñu leen fi woowee wax dëgg yàlla suñu bis daal fi ñu toll nii ñuy ñaan yàlla bépp bi ko daan def daaw ren ji moom dañ ko def xamante ne dina yéeme lool yéeme lool dëkk bi ñi ñi ngi jàppoo ñun suñu jom bopp kenn ku nekk wax naa leen damaa bëgg nga jënd sa doole jënd sa alal toppatoo lépp daal loo xamante ne loo xamante ni daal luy jëmale bis bi ñu ngi koy waajal bu baax a baax ndax xam naa ni maa ngi leen di soññiwaat ñu ngi jàpp suñu doole di ko ci def ñu ngi fas ne gën a diisoo gën a waxtaan li ñu ci bëgg lépp daal bu soobee bu ngeen ñëwee di xamante ni am nañ ci soppite bu baax a baax a baax waaw maa ngi ci gërëm sama mbokk mii du Kumba Ba ay ñoom yaay caane ay ñoom yaa xadi kamara ñoom ñëpp jàppal ndax lépp lu buñ ma ci jox rek dem naa ba sama kilifa yi waxtaan ak ñoom ndax ñoom ñoo fi jiitu cër bi ñoom ñoo ko waroon moom léegi daal ñi ngi ñaan yàlla suñu borom lépp loo xamante ni luy defar la ñun ñëpp nañ jéem defar bis bi ñoo ko moom kenn moomu ko doomu Kër Maysa ñoo ko moom dañuy jàppale waa Kër Maysa ñi nga xamante ni ci àll bi lañ nekk buñ ñëwee ñu xam ne ñun dañu fee sëy si ci teel leen seen yëf yi rek bu ñëwee lépp a ngi fi noonu la ñuy defante bis baa tamit képp ku fi ñëw doo xiif doo mar waaw bu soobee yàlla ah jërëjëf jërëjëf soxna Mbène Ndiaye macha allah ci kàddu gu am solo gi kon soxna Mbène moom euh, kàddu soxna yi la la la Euh, donte thème mu conférence bi ñoom lañ ko jagleel euh, muy cër boo xam ni cër bu mag la kon képp koo xam ni soxna la euh, di dëkk biir Kër Maysa wala ngay ressortissant Kër may Maysa wala sax ngay dëkkandoo muy waa Canaba di waa Touba gi di waa Xay di waa Canaba Gaar Euh, dëkk bi euh, commune bi yëpp macha allah soxna Mbène nee na en tant que soxna mu ngi lay euh, woo spécialement ñëw ngeen ànd rek ngeen bokk bis bi lépp lu ci génn ci ngëneel yàlla nañ ko bokk ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa kon ci fàttali leen rek ma ni ci ndigalul Baye Serigne Abdou Rahim Seck xalif général Thiénaba ak Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Babacar Sy Mansour xalif général de Tidiane sëriñ Cheikh Makhtar Seck xalif Ngourane sous la présidence Serigne Galas Khady Gueye Mbacke Ibnu El Bara euh, ak commandant Ndonga Fall euh, amicale bii di amicale euh, ressortissant Euh, di doomi euh, waa Kër Maysa euh, Njaake ñoom ñooy woote seen bisu ñaan bis bi nag lendemain korité la muy korité ba ca suba sa lañ ko war a def fii ci biir Kër Maysa bu 9 jotee nag ci la programme bi di commencé ba 10h li ñuy def mooy teeru gan ñi installé leen bu 10h ba 14 denc fi jàng alxuraanul karim wàcc fi ay kaamil joxe fi ay dog ñaanal ñi nga xamee ni ñooy way dawlu yi yal yàlla nangu ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi nag ñu def yëfi njaween yi euh, doog a dellusiwaat nag bu 17 heures jotee euh, ñu ñëw nag ci conférence bi euh, macha allah thème bi la place de la femme dans la société ki ko war a def mooy oustaz Adama Gueye di ñaan rek yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm kon woo nañ ci ñëpp rek bu ko defee ñu ñëw àndandoo ñoom ci conférence bi nga xamee ni macha allah conférence su diine la ca kàddu gu njëkk ga sëriñ Ablaye Diaw yëkkati na kàddu waxtaan ak ñun ci wàllu historique Kër Maysa cosaan nekke woon ak ba tey euh, dëkk bi ni ñuy dunde ci solidarité euh, mu nekk ay leeral yoo xam ni am na solo ginnaawam euh, a géy di président njaboot googu macha allah moom tamit yëkkati na ab woote rek jëmale ko ci askan wi ginnaawam nag soxna Mbène Ndiaye moom tamit yëkkati na kàddu soxna yi Euh, macha allah mu nekk lu ama am solo waaye gunge nañu ci jataay bi euh, sëriñ Dame Diaw euh, mi nga xam ne moom moo yore wàllu organisation ak mbenn Ndiaye moom yëkkati na kàddu soxna yi ak Kumba Ba mi nga xam ne wéttali na soxna mbenn ak sëriñ Jibi Diaw ak sëriñ Bàcci Diaw ak sëriñ Modou Fall Diaw macha allah ñooñu ñoo ñu wéttali woon ci jataay bi toogal fi waa Kër Maysa yëpp macha allah di ñaan yàlla rek yàlla na ci yàlla yóbbook jàmm ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam macha allah kon ñu ngi àndoon ak Talla Sarr Sarr doon na ko dimbali ci lumière bi Alpha Ibrahima Sarr ci montage bi di joxante dig daje incha allah yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla def mu saawaan baawaan ci canaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thiénaba TV à votre disposition pour la couverture de vos événements pour la couverture médiatique de grands événements si elle t'a plu sur abonner et sur la cloche pour ne plus rater les vidéos qui suivent pendant et après.